ginnaaw leen nuyoo di am contentement ak mbégte jërë a fës ci nag damay nuyu ñoo feggoo rek daal la. jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yëpp yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam. Assane nuyu naa la nelaw rek. Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaar la ñoom pour indi leen li gën a fës ci yenn kaayu làmb ci moo ngi noonu nag émission bi moo leen di may revue chaque jour fii ci Leewtoo TV mardi 6 avril 2021 journal suñu làmb moom xëy ci photo mu njëkk Eumeu Sène acculé boxé et blessé Lac de Guiers 2 vainqueur dans la polémique mu mel ne nag Eumeu Sène est méconnaissable Lac de Guiers triomphant mais sans gloire as mel jërëjëf Ndeye kenn noonu la ko journal bi waxee combat boobu doon dox ci diggante Lac de Guiers ak ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu seen amoon le 4 avril passé fële ca arène national euh, sunu lamb nee na euh, Lac de Guiers gëdd na ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène boxe na ko wante blessé na ko assan mu mel ni Leewtoo point net ak record tamit wax nañ ci combat bi. dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee journaux yëpp ñoom ñoo ci ñëw revenir ci combat boobu doo waroon dox dimanche bi passé wala doxandi doxoon dimanche bi passé ci diggante Lac de Guiers 2 ak journal suñu lam moom li mu ci gis moo ne Eumeu Sène acculé boxé blessé à l'arcade Lac de Guiers vainqueur dans la polémique noonu la ko journal suñu laam waxee nee na Eumeu Sène moom bu dee dañ ko acculé blessé ko euh, yóbbu ko trois fois ardo euh, Lac de Guiers moom am na victoire waaye victoire ci polémique la ko amee journal record également ñëw na ci combat boobu nu moom li mu gis nee ne c'est une parodie de choc de l'indépendance nee na au ñu gis benn choc de l'indépendance benn théâtre lañ gis le jour J Leewtoo point net également wax na ci nee ne woon waaye revanche bi daal saful xorom saful suukar moo noonu soobu lu Lac de Guiers ginnaaw bañ ko joxee victoire xëy na àddu ci mu ne meilleur combat de ma carrière. loolu la Lac de Guiers yëgle nee na combat bi daal mooy combat bi nga xamante ne bii moo gën a rëy ci carrière am depuis ba muy bëre ak léegi. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi combat bi jeexee mu am ci ndam par décision arbitrale Lac de Guiers li mu gis mooy ne nee na c'est le meilleur combat de ma carrière nee combat bi mu def moo gën a neex ci carrière ndax. dafa mosoon am défaite ci euh, décision arbitrale contre Modou Lo tey nag arbitre bi jox ko victoire ci euh, décision décision bi nga xam ne ni mooy ci après avertissement yi nee na daal kontaan na ci te combat bi nee ne moom moo ko diriger moom moo attaqué moom moo yóbbu Eumeu Sène euh, ardo donc moom li ko waroon lépp def na ko nee na également daf ci bëri ak ay fracture ndax nee na loxo bi dafa demoon te loolu bu ko neexoon reporter combat bi waaye defu ko dafa choisir ñëw bëre. baaram bi dafa demoon. Mhm. Mhm. Ibou Diop dama xam ne ci moom àndu ci li muy contesté mooy avertissement yi nga xamante ne bii arbitre bi jox na ko ñaari mbër yi nee na moom daal avertissement yi am na ci xel dëgg la Mbaye Babacar Ibn Diop moom mooy manageru euh, Eumeu Sène moom nag li mu wax nee na je ne trouve pas juste les avertissements nee na avertissement bi arbitre di joxe daal moom euh, d'accord ci loolu moom nee na euh, peut-être Eumeu seen li ñu ko blessé moom moo tax demul attaqué wul adversaire am waaye nag nee na Eumeu Sène a donné plus. de euh, coup que Lac moom li mu gis ne ne Eumeu Sène moom moo ëpp lim joxe ay coup que Lac de Guiers waaye loolu nag jafe na nit ñi euh, gëm ko waaw nee na Lac de lu ko yàq moom mooy il est trop défensif nee na dafa mën a défendre looloo tax combat bi guddee combat bi yàgg ba nit ñi kontaan nit ñi uh-huh. ginnaaw Ibnu Diop kii di Bira Sène àdduna ci mu ne il y avait beaucoup de calcul ñaari mbër président Bira Sène moom mi président CNG nee na combat bi dafa bëri woon li nga xamante ne bii moom mooy ay calcul ku ci nekk bëggoo woon a perdre bi moo tax combat bi demee ni mu demee. exactement comme euh, Lac de Guiers ak Ibnou Diop Bira Sène di président du CNG également euh, euh, yéen a ci yàbbi moom li wax nee na il y avait trop de calcul nee na combat bi. calcul moom moo ko yàq ñaari mbëri kenn bëggul woon jël say initiative euh, propre kenn bëggul jël ay di attaqué wala nga jël kii bi initiative yi moom nee na calcul dafa bëri woon trop moo tax combat bi yàgg trop waaye nag nee na moom mi ngi félicité service d'ordre bi ak public bi nga ñëw nga xam ne répondre en masse ñëw seetaan ci combat bi waaye nee na li xew ci combat bi nag CNG dina ci jël ay mesures dina ci tirer ay ay conclusions. ma nga doon nee na c'était un long combat wallaay gannaaw ba mu yëkkatee xaalisam jox leen muy avance ku ci nekk ñu jox la nga dem waaj ak say mbokk. komba bi yàgg lool ku ci nekk di wàcc waaye Gaston Mbengue mi taxawal combat bi moom li mu xam la mooy li mu doon xaar ci combat bi daal wax dëgg yàlla gisu ko ci ñaari mbër yi. dëgg la Mbaye Babacar si journal suñu làmb la xëyee wax wax jooju nee ne c'était un non combat nee na combat bi daal. un non combat bu jarul dara la waaye nag nee ne moom mi ngi doon xaar un meilleur ndax ñaari mbër yi yaakaaroon na dinañ euh, présenter amateurs yi lu ëpp liñ fa wane keroog mais neen nag euh, sentiment de déception la am ci ñaari mbër yi waaye nag li tax euh, li ko ab satisfaction bi mu am mooy li ñaari combat yi ñëw muy Diène Kaïré ak du Kaïré ak Modou Anta. nee ñaari mbër yi daal au moins ñoom présenté nañ amateurs yi loo xam ne nii jaroon nañu dëgg seen biir dem seetaan ci làmb jooju. kon ñoom ñaar ñoo sauvé journée bi. ñoo ñoo sauvé saison ñoo sauvé journée boobu ndax au moins présenté nañ loo loo xam ne nii. nit ñi bëgg nañ ci. ma nga doon nag premier face to face ce mardi Modou Lo le roi des arènes et Ama Baldé daal di cay bind ak ñi ki nga xamante ne bii mooy suñu làmb tey mooy nekk seen première face à face ñu war a jàkkaarloo tey jii foofa ca Sen TV ku ci nekk xas-xasloo ak sa morom wax li ngay andi jouru làmb ja asa dëgg la Mbaye Babacar euh, journal suñu lamb bind na ci Leewtoo point net également bind na ci Modou ak euh, Ama Baldé tey ñu war a def seen premier face à face depuis ba combat bi taxawee ba léegi combat boobu nag Luc Nicolaï moo ko taxawal depuis mois de décembre 2019 ba ba léegi nag ñaari mbëri ñoo ngi doog am occasion pour jëflante def benn face a face face à bi nag ñu ngi ko prévoir à partir de vingt et une heures foofa ca Sen TV lay amee. ma BG de Balla Gaye de di leen yow de Guédiawaye mais le show à nationale mbay. mel ni keroog euh, tàngal na ba mu tàng jër arène nationale moom mii di euh, Balla Gaye de série buri bàcc li magu saa Thiès di doomu Double keroog ci stade ba ñu bëri ci combat la de guerre beeg Eumeu Sène ñu ngi naan cëy bu doon Balla Gaye Assane. dëgg la. adversaire de Bombardier Balla Gaye a fait le show noonu la ko journal suñu lamb gisee nee ne euh, après combat bi waroon dox ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène Balla Gaye ba mu fa ñëwee daal def na show ndax ñëpp gis nañ ko ba mu duggee ci terrain bi wala ci arène bi ñëpp dañu ñëw tàccu ko mu fecc fa euh, saafante fa ak Bombardier mi nga xam ne nii moom mooy adversaire am saafante fa ak Eumeu Sène waaye jox fa également ay conseil kii di Lac de Guiers de Balla daal def na li ko war moo yëkkati na public bi le jour ci P.E. Jean mooy Modou Anta en 30 minutes euh, fukki simili ak ñett au lieu de 30 minutes euh, la kii di Diène Kaïra daal di daan Modou Anta mi jógee Thiès benn dëkk ñaari gaar di Baye Fall ba nga xam ne ñu bëri dañu yaakaara woon na sax Modou Anta moo nekkoon favori ci boobule combat Assane. dëgg la Mbaye Babacar P.E. Jean Modou Anta en 13 minutes Diène Kaïra crée un gros exploit wax na dëgg. Diène Kaïré exploit la def puisque Modou Anta mi mu doon dajal moo ko ëpp expérience ci làmb ji moo ko jiitu moo ko ëpp également euh, moo ko jiitu ci làmb ji donc euh, moom booy la xale la woon war a dajeek euh, Modou Anta donc bu ko daanee ak ni mu ko daanee exploit vrai la Modou Anta Diène Kaïré mi nag def na combat bu baax def na komba bu rëy te combat bi victoire bi dina ko yóbbu également dina ko ubbil ay porte ci kanam dina ko bil porte yoo xam ne nii dina ko permettre mu dox ay jéego ci làmb ji mu nekk xale ba nga xamante ne bi xele bu jar a bàyyi xel ci làmb ji la ndax mi ngi ci yoon te am na gannaaw am na gannaaw am na encadrement papaam moo nekk ci gannaawam di ko conseil di ko entraîner bu bàyyiwul lii muy def entraînement bu sérieux di déglu conseil yi dina dem fu sori ci làmb ji ginnaaw ndawam ko teree nelaw tere koo mooy titre foofa la teg bëtam moom Diène Kaïré doomu booy Kaïré bii dëkk Medina nee na fa mu teg bëtam mooy gàddu li nga xamante ne bii mooy ndombo tànku roi des arènes dem jébbal ko papaam bii nga xamante ne bii mooy booy Kaïré dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi mu amee ndam ci Modou Anta li mu xamle moom mooy nee na titre roi des arènes moom moo ko tere nelaw nee na nag promettre na ko papam nag comme ni nga ko waxee waaye promettre na ko également ay fans clubam nee na mu ngi liggéey bu baax a baax a baax te fi mu teg bëtam moom mooy roi des arènes te tôt ou tard dina ko atteindre. kooku di maire Bamba Fall maire Médina kontaan na ci moom daal di ko mel li xam ne mooy 1 million mu mel ni olof Njaay dafa ne ku def lu rey am lu rey waaw góor bayul ab tool wante yokk na ngóor gannaaw ba mu daanee Modou Anta meeru Medina di baa Fall war koo sargal yëkkati lu tollook un million jox ko ba pare war koo xewal xew mu mag foofu ca Medina. dëgg la Mbaye Babacar Bamba Fall mooy meeru Medina euh, bo bo Diène Kaïré di doomi Medina. ñoom ñaar nag ñoo àndoon foofu ci arène ba keroog bi moo Diène Kaïré daanee daf ko jël jëm ci plateau mu promettre ko. Euh, un chèque de un million franc CFA war ko ko remettre nee également dina ko organiser ba organiser benn sargal sargal Diène Kairé foofu ci Medina te bëgg na ko def avant weeru koor bii di commencer donc Diène Kairé ginnaaw bi mu daanee euh, waa Medina fas yéene nañ ko sargal. mu mel ni mu ngi noonu Assane ndam dafa neex. ndam dafa neex bu amee ndam ñëpp ngay kontaanloo euh, làmb dafa garaaw public bu bëri ngay drainer nit ñi bàyyi seen yitte yëpp dikk di la suivre boo ñëwee ba ci bi wax dëgg yàlla war nga def loo xam ne nii ñooñu di leen kontaan ci yow. dëgg laa sax. moo ngi noonu nag journal record la ñuy jeexandee ak lutte olympique kii di Anta ak Thiaka Faye éliminé Adama Diatta aux Jeux olympiques pour la troisième fois. Adama Diatta moom qualifié na pour représenter suñu réew mi di Sénégal foofu ci jeux olympiques yi war a am foofu ca Tokyo incha allah Assane bii nag mooy ñetteelu yoon muy qualifié di dem ci jeux olympiques yi. dëgg la Mbaye Babacar Adama Diatta qualifié aux JO. pour la troisième fois euh, bii mooy troisième fois muy qualifié ci Jeux olympiques yooyu tournoi bi mu qualificatif yi nag mi ngi doon am ci Tunisie la doon amee di 2 au 4 avril bi passé moom nag gagné na benn sud africain benn malgache ak benn tunisien moo loo loolu ko permettre mu jël euh, médaille d'or boobu médaille d'or boobu également moo ko yóbbu ci Jeux olympiques yi nga xam ne ni mi ngi am ci Tokyo euh, ci année 2021 bi ñu nekk. Leewtoo point net la ñuy mooy conférence de presse du tey jii incha allah CNG war a amal lii di ndaje ak taskatu xabaar yi bu ci a yàlla àndee bu ñeenti waxtu jotee foofu ci arène nationale ngir war a waxtaane lépp la nga xamante ne bi Assane luy doxal làmb la. dëgg la Mbaye Babacar conférence de presse le CNG di organiser tey au lieu que arène nationale ci benn hôtel lay amee hôtel bu tudd l'adresse mi ngi nekk ci Almadi. Euh, conférence de presse boobu à partir de 16h lay commencé waaye li ñu ci nar a wax moom mooy le mercredis de l'arène chaque mercredi CNG dafa fas yéene tëgg ay gala de lutte suba nag lay démarré donc balaa ñuy fay àgg tey den dëgg def benn conférence de presse par wax ci pour wax ci euh, événement boobu waaye den wax également ci seen partenaire bi nga xam ne ni war na dox ci diggante CNG ak GFM euh, CNG dafa war a am également benn nouveau logo loolu dinañ ci wax waaye dinañ wax également ci benn projet de plateforme digitale boo xam ne nii Brassène ak équipe bi dañ ko war a préparer. moo mel ni dige bor la ñoo ko dige woon incha allah fa yéene nañu koo def. oui CNG bu bees la équipe bu bees waaye li fi teg nii mooy que ni benn orientation bu bees lan am te lii yaakaar naa war na doxal làmb ñu déglu leen xool lan lan ñuy proposer ngoon mais daal li ñu waxagum daal na xel pour le moment. ñu yónni yàgg. ñu yónni yàgg mu ngi noonu di la bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen revue de l'arène fii ci Leewtoo TV incha allah jaajëfal waa Jurbel bu baax a baax sama dëkk yàlla yàlla dolli jàmm bu suba jàmm les Mbacké comme d'habitude di remercier waa Linguère di remercier Yacine Fall yëpp di leen jox dig daje suba ak jàmm boobu xibaar yi maa ngi sama équipe technique bu fi nekkoon loolu Fama euh, Matou kii di Yacine Fall maa koy bëgg bu baax Québec suñu infographe boobu Ousmane man Pro ci caméra bi maa ngi dox diggante ëllëg incha allah ci Leewtoo bi